sëriñ bi loolu dafa ñu war a interpeller ci mais yenn sénégal yi nu ñu mënee amee yenn liquidité yi alors que y a de cela 15 ans mais ils étaient inconnus du bataillon dañu waxante dëgg. ah génne benn benn bëccëg. inconnus du bataillon cash maa ngi déggaat beneen plante encore une fois. waaw moi je pense que ni gis nga yooyu. yooyu pour que ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñiy waaj a ñëw yaa ngi dégg duñ ko xalaata def. il faut comme mu am ay mesures yoo xamante ne bi parce que mais traque bien biens ak acquis lu mu mën a nekk nekk nekk nekk nekk nekk euh, exigence sociale yaa y a de cela douze ans mais ñi dee moo gën a nekk farata nañu waxante dëgg moo gën a nekk farata loolu am na ci ñi dee ñoo xamante ne ëllëg mënoon nañu jiite réew mi mënoon nañu nekk président de l'Union africaine mënoon nañu nekk secretaire général de l'ONU mënoon nañu jiite aussi parce que ay nit kese ñoo koy jiite dañu waxante dëgg mais tey bu nekkee ñoo ñëpp sawaay dafa mujj jeex mu mel ni lépp les fable de la fontaine mu mel ni conte d'Amadou Koumba non franchement on va continuer encore une fois à payer les notes mooy lan ëllëg ak si biir dina tax parents yi ñi nga xamante ne bii dañ daan am benn négligence pas négligence wala ñi nga xamante ne bii seen doom mënoon nañ ñëw ne leen yaay dama bëgg a def politique dañ leen di désengagé parce dañ leen naan carrément li ngeen def nii jaru ko et finalement jusqu'ici en sentiment boobu la nit ñi di am tout ça pour ça nit ñi rayante nañu xeex nañu finalement c'est au Cap Manuel mhm. finalement y a eu des médiateurs finalement ils se sont réconciliés finalement le 28 jeudi 28 mars 2024 vers les coups de midi le binôme se rend au palais il la le président mu ne ko Ousmane naka yaram wi bas ne ko président ne ko yaram bi donc après finalement noonu lay mujjee. mais léegi yow damay sous-entendre ci say kàddu euh, ngoone après nga ñëw ne euh, dafa am un protocole euh, dafa am le protocole de Cap Manuel. mais soxna si loolu. protocole de Cap Manuel bi lan lañ ci tënk ba war a mën a tax peut-être. du mën a remonter ba ci président Macky Sall pour mu. soxna si voilà protocole cap moom mënu ma ci wax dara. d'accord tu sais pourquoi. oui parce que ñi ma ci waxtaan la dañ ma ne dafa teel. Mhm. yaa ngi dégg. oui dañu mel ni dafa teel donc. Euh, oui. yaa ngi dégg donc pour le moment. Euh, heure bi jotagul daal pour ñu wax ko. Mhm. parce que am na yoo xamante ne boo ko fi bëggee sulli fi mu nekk nii. Mhm. c'est comme si tu es de t'opposer alors que ñun loolu taxu taxuñoo jug. Mhm. un journaliste il est dafay am benn rôle vigile. ok yaa ngi dégg il est un contre-pouvoir contre-pouvoir c'est-à-dire le mécanisme de check balances uh-huh. contre-pouvoir la mais il n'est pas contre le pouvoir mais l'un dans l'autre li gën a am solo mooy ñoom bés bu ñu fiy jóge ban sentiment la ñuy bàyyil Sénégalais yi c'est ça qui est important mm -hmm. mais pourtant ndeysaan Macky Sall 2012 ba 2021 soxna si def na fi lu bari mais trois ans yi mujj nii opinion défavorable yi ko topp mais Macky Sall était obligé mu dem yoonam est-ce que tu sais une chose soxna si. maanaam Macky Sall même bu nekkoon da doon joxe or. ci trois ans yi weesu trois ans yi weesu sénégalais yi ëpp ci ñoom dañu jàppoon ne ñii fi toog nii bu ñu ñëwee ours la ñuy joxe jamaa la joxe parce que loolu mooy sentiment popularité pourtant El Malick Ndiaye <laughs> ñoo dem inauguré BRT bi voilà. et pourtant BRT bi yàq nañ ko ñaari yoon. bien public la tey bu ñu la ci toppoon destruction de biens appartenant a autrui wala détru euh, destruction en fait des biens publics mais da ngay tëdd ci kaso bi loolu ñëpp xam nañ kan moo ko yàq non dama ni manifestation yi amoon mhm. léegi nag loolu justice moo ko moo ko mën a leeral loolu laa wax dama ne ñooñ bu ñu leen ci toppoon mais dañuy tëdd ci kaso bi loolu bu dee fete ci nguur ñoo ko yàq ba pare jiñ opposition nag waaw lépp mën na am d'accord c'est là justice tey bu defee li mu war a def ñu dindi amnistie bi ce que je dis là je le maintiens ñu def li ñu war a def bu boobaa sénégalais yi danañ xam parce que lii fi nga fiy gis yëpp en terme d' investissement en terme d' infrastructure mais Ngoné Saliou sax xaalis la xaalis Nabou Cor la sama xaalis la xaalisu Mamy Samb la loolu mooy dëgg soxna si li fi xewoon loolu waratul mën a xew te loolu jusqu'ici est ce que xam nga ni ba léegi moo am jusqu'ici yaa dee am na benn groupe boo xamante ne bii jàpp nañ ni beneen groupe bi dañ contre Sénégal yaa ngi dégg alors que benn Sénégal moo am les pères de ce pays dañoo taxawal nation. yaa ngi dégg taxawal république bàyyi ko fi nag dañ waxante dëgg de dañ ko fee bàyyi donc ñi ñëw pour encore ñu inscrire seen démarche ci li nga xamante ne bii loolu la fi les pères bàyyi waruñu am santiment ne. li xewoon dañ koy nëpp nëppal donte nag présentement nii li ñu commencé di gis ci wàllu justice dal na xel maanaam flagrant délit su ma juumalee salkaat nga jëm du yàgg amul instruction ñu daan liñ la war a daan maanaam quelqu'un comme Cheikh baara bokk fi mu bokk keneen ki bokk feneen yóbbu ko ci yoon fan lay mujj yàlla moo xam mm-hmm. te loolu amul woon dañoo am dëgg quoi au fait donc am na ay signes yoo xamante ne mu ngi commencé di feeñ ci feeñin boo xamante ne bii xel mën naa dal mais encore une fois loolu exigence la quoi au fait nit ñi xam kan moo def ak lan moo tax nga def ko soxna si xoolal Donald Trump dafa perte élection yi manipuler ay nitam te est-ce que xam nga ni élection yi di ñëw daf koy gagné bu ñu deful ndànk il va gagner les élections il est d'une popularité insolente. Ouais, c'est vrai yaa ngi dégg mu manipuler leen ñu dugg ci capital bi loo xam ni man ci histoire u États-Unis mosuma ko gis mais sëñ bi gars yi dañ ko inculpé. waaw sëñ bi su ma juumulee Trump est-ce que amul lu mat 92 inculpations. 92 moom Trump moom Trump. et pourtant day baat campagne. Mhm. peut-être système bi moo demee noonu foofu. waa ñoom le système bi waaw c'est vrai. waaw mais ñu ñu génn état ñëw Sénégal la Nabou doon laaj mhm. léegi. Mhm. ci sa biir wax. da nga wax ba ne bi ñuy wax naan président Macky Sall ci foog naa foofu ñoo fa bokk xalaat. Hmm. ñu war ñu ko woon bàyyi mu génn Sénégal. non man waxuma loolu mais dama ne. waaw pour comprendre ko. waaw d'accord léegi da xam protocole du cap lan la. waaw d'accord man léegi man loolu laa jàpp ne waxu woon génn Sénégal. Hmm. léegi nga wax protocole du cap. Hmm. ni nga ko junjee nii yow kon ça veut jàpp ne wala da nga xam ne. <laughs> ngóore ah. inquisition <laughs> jàpp ne wala da nga xam ne protocole du cap am na. mais soxna si. waaw xaaral ma eggali alaaji le 15 ou bien le 16 mars 2024. waaw Sonko nee na waxtaan am na wax na ko la waxoo. waaw déedéet waxuma Sonko man yow laa wax gisuma Sonko su ma jàkkaarloog moom. la république d'Azalaï bi ñuy nekk Azalaï. su ma jàkkaarloog moom. la république d'Azalaï. alaaji ñu ñu dégloonte rek ma ne bu ma jë bu ma jàkkaarloo ak Ousmane Sonko. Uh-huh. dinaa ko posé question mais comme ci yow laa yemagum. Mm-hmm. yow laa koy laaj. comme yow def nga ba xam ne euh, protocole du Cap am na. nga ne dafa am koo waxtaanal. ñu ma waxtaanal. ñoo waxtaanal ñu ne dafa teel pour wax ko loolu di xaar. non non non non mais loo xam ne tôt ou dafay nekk sur la place publique man sax mën bañ a wax. mais moom moom il est à la fois acteur il est fois concerné. waaw euh, il est à la fois au centre il carrément bés bu jotee danañ ko wax loolu il l'a lors de sa première sortie. non je parle pas de de soxna si soxna si très honnêtement ah. maanaam gars ñi fi nekk nii Sénégal yu bëri dañ leen voté yaakaar leen man duma ma bokk ñi nga xamante ne damay wax yenn wax yoo xam ni day joxe sentiment ne damay déstabiliser man loolu. du ma ko def non mënoo déstabiliser mais en fait c'est une manière de dire est-ce que yaa ngi dégg baali ma la man pour le moment. Mhm. man li may constater mooy sur le plan de la justice yaakaar mi ngi commencé di juddu. Mhm. am na ay actes yu ñu commencé di poser. ndax lu daan def instruction ñu daal di koy andi flagrant délit. mais loolu soxna si kan moo xalaatoon. mais convoqué journaliste daal di koy bàyyiwaat mu ñibbi. mais nangam jaxate mais soxna si nangam jaxate at yi mais attends ñëpp la doon saaga soxna si. waaw kan moo xalaatoon rek jaarale ko ci yoon. kan moo xalaat nga xam ni flagrant délit lay def comme ñun ni ñu toogee nii. Mhm. di wax loo xamante ne bii dafay dafay dafay dafay jëriñ askan wi mais moom à l'envers la doon génn di dal ci kaw nit ñi di wax lu ko neex. ñu bàyyi ko ci. ñu bàyyi ko ci. léegi rupture am na dem na. et pourtant mais li mu waxal Ababacar Mboub ça date de deux mil vingt deux. oui ou bien. Mm mm-hmm. d' accord. Mm-hmm. donc bu kenn jàpp ne dafa am ay harcèlement wala quoi que ce soit ay nit ñoo taxaw de façon responsable de façon découverte et ils ont parlé à mot découvert encore une fois wax ci ay nit mais loolu naturellement yoon dafa lay woo nga indi ay la yu bir tu comprends. léegi nag est-ce que autorités yi fi nekk dinañ mesurer dinañ mesurer solos li fi xewoon ñu leeral ko loolu ñoom ñoom a gën a mieux placé pour pour pour pour indi ci ay tontu. protocole boobu nga ci tënk. non du ci wax dara. du wax clause du da nga koy da nga koy ci ma ci wax dara. loolu yëpp nga xam ko pare toog noppi. du ci wax dara xanaa bëggoo rupture. nga ne la. rupture bi ñuy woote xanaa bokk goo ci. xam nga yow intuition ngay def. ah déedéet ma bëgg a dugal. dugaluma hmm? la dama lay laaj. dama bëgg xam non bàyyil noonu rek soxna si. bàyyil noonu rek s'il te plaît laisse tomber. fas yéene woo ko wax. non dama ah kon yoroo dara. ah baax na. Hmm, hmm. yow l'islam xam nga ni man. <laughs> léegi yow wax ñu kan mooy. ma ne ma ne ah. boo yoroon yow eh, ay close wala ah, ay yeneen ak yeneen wax dëgg yàlla da nga koy da di wax yow mais yow ko jënd bàyyi ko jënd protocole de protocole de de cap man seen yooyu seneen kii la. kan la ah léegi ni nga ko dencee moom la dencee eh, protocole de. Cheikh Mbacke Ndiaye mi nekkoon ci président de la république ñu xàmmee ko tam daa nekk fii ci Kaysers. Mhm. kooku mooy CMN. noonu lañu toppee escroquerie foncière 18 millions ba mu demee ki takk dere nee leen mhm. ñu may ko 8 jours dana fay kon maa yor yow li ma ko waxee waxee ko d'accord mais man naa dem ci Cap Manuel day toog fi naan ah, wax li wax ko bu soobee yàlla du ma wax de yow ah, amul amul yow wax maa wax lii waaw d'accord moom na la ko mhm. man loo ma su may paree mën xam nga ne man mën naa wax ba duggaat Cap Manuel waaye bàyyi ma génn fi mu toll nii maa ngi taxawaat fii nii <laughs> ayca. seen gouvernement man bokk ma seen bu ko faale ayca ayca ayca.